ay fonds di ay moyens bi yàlla dogalee ñu dugg ci campagne bi li njëkk a jóg jëm si ci ay fonds ci dëkk bi yàlla dogal na ci sama loxo man mii la jaar bi moo ci accès it ñëw naa ba indi ko Touba woo ñi nga xamante ni ñooy responsable yi nga xamante ni fañ ko jëlee lañ ñu wax ne nañ ko ci def ñu defe ko noona mooy ñëw Touba dajale ki nga xamante ni mooy ma ko ci ak Serigne Cheikh Abdou Lahad Gaïndé Fatma jox ko ci ak yenn responsable yi ñu dajale zone yi jiital leen lim ba ñu waxoon ne moom la ñuy yëkkati jox ko zone yi ci première tranche bi jàpp naa ni Serigne Mor mi ngi ni toog ci suma wet képp kuy président zone toog nga ci suma kanam ci kanamu yi bi ak kanamu responsable ya ko fekkee ak ay bokk ndax lu ñëpp bokk la ñu yëkkati la nga ca war a am ci première tranche ba jox la ko nga def benn décharge ñu téye kayit ya ci noonu lañ ko doxee ci zone yi nekk Touba muy fukki zone ak ñeent lañ ko séddale bi ñu ci noppee woo nañ communes yi woo nañ président Serigne Moustapha Mbacké ndax monsieur le maire Mbaye moo nekkoon interlocuteur man bi ma tànnaloon sama bopp mu dox suma diggante ak ñoom mu convoqué leen nit ñu ñëw toog ci kanamu responsable yi mooy comité électoral Touba ci njiital Serigne Abdoulahad Seck Sadaga fekke woon na bi ñuy jox zone yi bi ñu ñëwaatee it war a séddale communes yi seen première tranche jàpp naa ne ñun ñëpp ñoo toogaat. Mhm. tëju ci benn barab fukki commune yi ak ñeent kenn ku ci nekk maire ba ñëwal boppam taxaw ñu jox ko li nga xamante ni mooy li ñu leen war a séddale ci première tranche kenn ku ci nekk ñu jox la ko nga jël kayit ñu bindal la benn xos yi nga émargé ma denc ko. bi ñu nekkee loolu di ko doxal ci biir campagne bi am na nag yeneen mbokk di ay xarit. day am di jàmm yoo xamante ni ay nitu président de la république lañ ay nitu nit ñi nekk ci biir dëkk bi lañ ñëw nañ fi jàpp naa ne taxawal ay jàppale yoo xamante ni dafa jëm si ci kuy jàppale président mais kuy jàppale coalition Benno Benno Bokk Yaakaar jàpp naa ne ñëw nañ fii nañ tudd seen indi ay jàppale yoo xamante ni ci zone yi la jëm lu ci nekkit ba mu ñëwee ni ñu defoon ci tranche bi njëkkoon a ñëw noonu lañ ko doxalee jàpp naa ne bi njëkk bi njëkk a ñëw te bokk ci loolu ci loxo yi ku ñu naan As Jaxate la jaar mu dem ci Alla Sylla mi nga xam ne mooy trésorier wu parti bi toog fa ak morloo ñoom ñi ak responsable ya ko fekke ñu séddale zone yi li nga xamante ni mooy appui bi njëkk a ñëw te jóge ci kuy jàppale coalition bi jàpp naa ne loolu noonu ngeen ko doxalee dara ump ci lépp a leer te loolu mi ngi jóge ci ku ñu naan Njañ Fall noonu la doxee bi ñu demee ba ca kanam am na yeneen ay nit yoo xamante ni jëlaat nañ seen alal indi ko di ko jàppale coalition bi mën nañ ci tudd monsieur le maire Abdou Lahad Ka moom tam yoon woowee la jaar ba mu ñëwee dem nañ ci àll si la ak ñamu yónni teg ko ci loxo Abdou Lahad Seck sa dàgg ñu séddale zone yi li nga xamante ni la yëkkati woon ci ay moyen ngir jàppale leen ko jàpp naa ne lu ci nekkit noonu lañ ko doxee bi ñu demee ba ca ay fanaat Serigne fàllu Mbacké transitaire ñëwaat na fi moom tam indi fi mën-mënam ci li mu am jàppale ko zone yi ngir jàppalee ko coalition Benno Benno Bokk Yaakaar moom it noonee la doxee bi ñu demee ba amaat ay fanit Serigne Cheikh Mbacke solution moom Serigne Moustapha Massamba moom it defaat na noonu ñëw na fi indi la mu am te mën koo jàppale zone yi jàppalee ko coalition bennoo Bokk Yaakaar ñu woowaat leen président zone yi ku nekk ñu teg ko ci sa loxo bi ñu nekkee ci campagne bi bari na am na ay ñoo xamante ni wax dëgg yàlla ay kilifa lañ te seq ko ak kilifa gi nga xamante ni moom la ñuy jàppale muy son excellence président république mais ko coalition Benno Bokk Yaakaar taxawaay yoo xamante ni war na kuy jàppale ku jëm ci foo xamante ni yittewoo na ku ko jàppale lu ci ñëw it noonu dong lañ ko doxalee jàpp naa ne àgg na ci fi nga xamante ni mooy président zone yi ñu ngi ni toog ndax lu ci mos a ñëw dañ leen di woo wala lu jëm ci ñoom it bu ñu ko yëgee ne leen nañ ko doxale ci ni nga xamante ni ni la waree bi ñu demee ba campagne bi toll ci juróomi fan war a toll ci war a mat wootewaat nañ ndakaaru yónnee li nga xamante ni mooy deuxième tranche u fonds yi nga xamante ni moom la ñu war a liggéeyee yeggalee ko campagne bi bi mu ñëwee nañu defoon ca bu njëkk bi rek yàlla dogal na loolu la ñu defaat dañu woo Abdoulahat Seck saa dagg ci bi ma jokk ak Serigne Cheikh Abdoulahat Gaynde Fatma ba pare ñu woo Abdoulahat Seck sa dagg bi nga xamante ni mooy jiite comité électoral bi woo Alla Sylla mi nga xam mooy trésorier bi ak ñi nga xam ne ñoo ŋànk zone yi ñu ñëw toog fii ñoom tam nekkaat fukk ak benn ak ñett yi ci topp ñaar yi ñett yi kon muy fukk ak ñeent kenn ku ci nekk lañ fi indiwoon ci ay fonds jox la ko ci bu njëkk ba ñu waññeewaat ko noonu ci kanamu ñëpp jox la ko ci ñaareel bi kenn ku ci nekk def décharge mi ngi ñu téye kon jàpp naa ne bu dee ay fonds jóge na Ndakaaru ci bopp partie bi jëm si woon ci département de Mbacké te jaaroon ci sama ay loxo man mii nekkoon tête de bi ñaari yoon la nañu ko fa jëlee woon ak fañ waxoon ne nañ ko fa dugal noonu lañ ko def ci zone yi noonu lañ ko def ci commune yi itam lu ci nekkit mbooloo ma ko séq muy fukk yi ak ñeent ci ay zone kenn ku ci nekk yaa dikkal sa bopp ñu wañ wàññi jox la nga signé kayit bàyyi fi dem noon it lañ ko defee ci première tranche bi ni lañ ko defee ci deuxième tranche bi noonu it lañ ko defee ci comme ni ma ko ko ci zone yi mais noonu aussi lañ ko defee ci maire yi kon jàpp naa ne bu dee mbirum fond buy jógee feneen di ñëw noonu lañ ko doxalee ba jàpp naa ne lu ci nekkit mu ngi ci ay këyit lu ci nekkit jàpp naa ne ñi ko war a yëg te nekk responsable yi nga xam ne nag ñoom ñoo war a jóge ci bopp comité bi dem leeral wala dem liggéey ak ñi nekk ci base bi muy militants yi ak militantes yi loola président ba ca moom lay tàmbalee jëm ci ñoom mais li aju woon ci comité électoral bi war a dem ci président bi wala wala dem ci maire bi yàlla dimbale nañu ci ba lépp loo xamante ni moo ci waroon a nekk pàcc bu njëkk ñëw na dem na ci ñoom ku ci nekkit ba nga ko jëlee bàyyi nga fi këyit wane ne jël nga nàngam yóbbu nga ko ci bu njëkk bi ak bu mujj bi. jàpp naa ne bu dee ci mbirum fonds yi noonu lañ ci doxee. mbirum liggéey bi tam li may wax rek kenn ku ci nekk yëkkati nga sa mën-mën. def ci loo mën ak loo mënul ngir doon sàkku yàlla suñu borom defal ñu ndam nii nag xëy na mooy li nga xamante ni mooy dogalu suñu borom ñu nangu ko nag assumer ko ndax yàlla kat lépp loo xamante ni dogal na ko mooy li gën ñi yàlla dogal it ñu jiitu jël liñ naan ndam li wala jël liñ naan seeni li si jàll suñu li si jàllut mën nañ cee citer Serigne Cheikh Abdou bu Serigne Bara lim ci Serigne Cheikh Thioro ñuy sunu ay rakk ñu ngi leen di féliciter ak ñi ñu bokkal nekk ci liste yooyu mais aussi di leen encourager ci fi ñu toll ak fi ñu jëm ëllëg ñu xam ne ñun ak joom ñoo bokk dëkk bi te li ñu taxoon a jóg mooy sa taataan baatu askan wi ngir taxawal dëkk bi ci pencum ndaw réew mi ngir lépp loo xamante ni lu leen di jariñ la te war a jóge ci état ñu mën ko xame fii yóbbu ko foofa wala jëlee ko foofu indi ko fi loolu moo doon suñu yitte moo doon suñu bëgg-bëgg gëm nañu nag ni engagement ak détermination bi nga xamante ni moo nekkoon ci ñun moo nekk ci ñoom rek kon bu ñu toogee ba tey yàlla suñu borom yëkkati ci coobareem jox leen ko dañu leen di ñaanal yàlla suñu borom defal leen wér defal leen fekke defal leen tal sàmm leen te yiir leen te it ñi nga xamante ni ñoo ko doon wutundoo ak ñoom tey dañoo war a jël seen jëmm ak jëmmi ko am boole leen muy benn. ñu xam ne dëkk bi lañ ko amal muy département de Mbacké mais aussi Sénégal lañ ko amal parce que niñ ko amee ci gox bi la ko ñeneen amee ci beneen gox loolu ñu ngi leen ci encouragé di leen ci félicité di leen soññ aussi ñu bàyyi xel bu baax ñoom fi ñu jot jaar ba li ñu dégg ba tax ñu am li ñu am ñu bàyyiwaat yitte yi doomu aadama yooyu xel mën cee def seen yitte di ñaan yàlla suñu borom mu defal leen tawféex ci mandat bu fi mos a jaar nit du ci wut lu jariñ saw askan wa nga sàkk woon. seen i kàddu ba ñu jox la ko na seen màndaa bi nekk ci màndaa yi dàq ci kuy teewal sa dëkk te ñun la ñuy teewal ndax ñun ci dëkk bi lañ dëkk te ñun ak ñoom ñoo ko bokk. kon ñu ngi leen di ñaanal tawféex di leen ñaanal sutura. di wëlbatiku tamit nag di santaat encore une fois waa Benno Bokk Yaakaar di leen sant di leen gërëm am na nag loo xamante ni day nekk ci biirum njaboot ñu mën koo waxtaane ak ñu mën koo bañ a waxtaane ci sunu biir. ak bi élection yi tàmbalee ba bi muy sontu ñun ñi nga xamante yàlla dogaloon na ñu nekkoon responsable war a mën a xam liy xew ca lañ mën a xam nag lañuy wax wala yëg liy xew ca lañ mën a yëg ku néew am na lu ñu tiire ay leçon ci biir ànd bi nga xamante ni moo nekkoon suñu diggante ak képp ko xam ne responsable nga nekk ci dëkk bi la ñu ci tiire nag muy loo xamante ni xamal nañ ko suñu bopp tiire ko muy lu palpable nag loo xamante nii tey dañ naan boo doon seet dara ba loxo nekk ci poos da nga naan loxo dugg na ci poos ñu xam ko dajale nañ ko ay benn benn yi mu doon tënk ko ci aw kayit ñun ñëpp dafa am kuñ doon jàppale ñun ñëpp dafa am kuñ doon taxawle ci liggéey bi mu yoral réew mi ngir sunu borom dolli ko ci ay tawféex mais ngir sunu borom may ko mu gën a mën a yeggale liggéeyam te loolu aussi ñu ngi kiy félicité soxna Aminata Touré gannaaw bu ñu ci président félicité président. félicité félicité soxna Aminata Touré mi nga xam ne moo jiite woon liste bi ren ñëpp def ci loo xamante ni yéene la ànd ak pas-pas li ñu ci tiire nag muy ay leçon yoo xamante ni mbooloo mu ne dana am lu ca mbooloo mu ne ku ne ak na ngay doxee te xam ko ci incha allah tënk nañ ko ci wenn kayit ñun ñëpp dañoo dajale woon di jàppale benn coalition coalition bi am kilifa. yoo xamante ni kilifa yu bari ñoo dajale seen kàddu ak seen ay pas-pas ak seen bëgg-bëgg jébbal ko son excellence président de la République Macky Sall li ñu ci jëlee nag te war ko ko jox li ñu ci jëlee te war ko ko jébbal danañ ko ko jébbal moom aussi dana tiire ay leçons mais dana tiire la mu bëgg a def ci lañu koy jébbal te xam ko te war ko ko jébbal nag ndax dañoo bokkoon ñun ñëpp di saytu liggéey boo xam ne buñ ko dajalee ñun dañoo rendre compte. te incha allah loolu jàpp naa ne duñu ko manqué benn yoon. nit ñi ñun campagne la ñu mën pour seeti nit ñi ak wax ak ñu génn xam nga nit nag bu fekkente ni fii 400 personnes ñoo fi war a wote li ñu naan ñeenti téeméeri doomu tey nga dem ba ñeenti téeméeri wote si wuñ ñaar téeméer ñoo wote wala téeméer ak nangam kon xam nga bu taux bi wàññi koo wàññikuwul ci ki nga xamante ni moo jógoon di wuti ki doon jóg di wuti woon bu sañoon lépp lu nekk ci fichier bi kooku day génn ñëw lan moo tax nag nit ñi génnuñu. loolu di dëgg dana jafe ci man ma xamal ko sama bopp mën naa indi ne fi ñu toll la parce que nawet la ñu nekk mën naa indi ne xëy na sax am na ci nit ñoo xam ne bindu woon nañ ci li si dëkk ci département bi te tey naweti nañ wala ñu nekk ci yeneen yitte yoo xamante ni permettre wu leen ñu mën a ñëw wàññeeku pour indiwaat taux bi ñu amoon ci local bi wala mu ëpp ko bu dee ci côté boobu moom mën naa koo layal ci wet googu ndax nit ki moom ki daan ñëw bu ñëwul li ko téye doo ko xam ndax ñun bu ñu sañoon en tant que kuy ay nit di la may ku ñëwoon lu ko ëpp day ñëwaat am maa nag jëmmi li jot a ñëw matul la ñëwoon bu njëkk kooku mu ko dëgg damay day xaw a gàtt ci man ma xam xam-xam bu ñu xamoon ne bu ñuy jaaree fii dañuy daal di am kon duñ jóg di sonn dañuy dem rek jël téye euh, kii jóg di wuti bëgg a am boo ko yóbbu mais ñun dañu gëm ne bi ñu demee li ñu li ñu am mooy wuti nañ ko ñeneen am nañ ko dañ ciy sant yàlla mais di ñaanal ñi ko am ba xam nga nag euh, dama ne la nit kii jóg di wuti bëgg rek la def yàlla nag suñu borom mooy doon ñu dañu assumer ne yàlla mooy joxe xam nga kiy joxe li mu la jox ngay jël li ñu yàlla jox mooy fas yéene féetewoo ñaanal ñi ko yor te am ko ñu am ndam. waaw xam nga bu dee li nga wax nee naa la fii bi may sant responsable buy sonnal coalition bi mu bokk sëriñ Serigne Modou baar Doli dafa bokk APR bokk ci benn Benno Bokk Yaakaar. moom ni mu xam wala mu xalaat ko ni lay jàppe wala ni lay dul jàppe kooku moom xam nga moom lay loolu moom lay ñeel mais man li ma gis te yëg ko ba fan yu mujj yi dañu ngi daje ci terrain bi moom bu ma gisul man gis naa ko gis naa ne mi mi ngi def lu ñuy may ndam loolu laa ko mën a seedal mënu ma koo seedal leneen bu fekkee nag leneen lu muy wax la man wax dëgg yàlla xamuma ci moom lu ma ko war a waxal lu weesu suma mbokk la suma xarit la suma ànd jàmm naa ne yéene na Macky Sall ndam mais yéene na coalition bi ndam bu dee soxna Khady Diop bi ngay tudd yàlla dogal na man fii lañ ma présenté Khady Diop mu ne ma wax ma fa mu nekkoon ak kañ la ñëw nee na ma ñi doon jàppale Sabiel Sarr di jàppale président ñoo ko dugal ci parti bi ñëw na fi wax ma boppam dem na ba moom mënatut a nekk ak ñooñu ci lim ma wax te ay seere la am bi ma ko waxee ne ma dafa bëgg ma jàppale ko pour ñu ànd liggéey yàlla dogal na li ñuy wax muy ay koppar li ma ci yor lam ca mënoon a jot akus néew yëkkati naa ko ko jaarale ko ci ay loxo ñu jox ko Khady Diop turam ma nga ci liste ba jot na ci bari na wala jot na ci bariwul moom am na lu fi jógee ñëw ci moom